dërëm la ñu yokk ci njëgu paas bi ci yenn bus yi loolee nag kayit bi ñu bind fii nag di xamal njëg yu bees yi léegi nag daanaka cent franc dootul amati ticket ak foo mënti dem xibaar boobee nag client yi ne duñ ko nangu. cent franc ñu bëgg a éliminer def ko fanweer foo jëm fanweer foo diggante bu nga xam ne day def ko fanweer. mais diggante marché Tilène ak Petersen cent cinquante ngay fay diggante marché Tilène ak poste Médine nga xam te ne boo taxawee marché Tilène da ngay seen poste Médine chauffeurs yi ak receveurs yi ñoom nee nañ ñoom ak clients yi ñoo yëgandoo mbir mi waaye nag saay su ne dañ leen di agressé li nga xamante la ñu fay ba pare boo leen ne wàccal du ñu wàcc dafa am coow daal dafa bu ci dem police ak clients yi yëpp même même eh, ñoom réviseurs sax dañ dañ ñoom dañ cee am problème ndax chaque jour coow la chaque jour dañuy coow chaque nag ci chauffeur bus tata yi ñoom xamal nag ni yokkuteb carburant moo waral li ni mel. pour yokk bi da ci am ndigal ah ñi jiite daal ñoo ñu yokk loo yokk. gasoil bi seer na assurance seer na pièces yi ñuy jënd pièces détachées yi dafa seer léegi dëkk bi lépp a ci ab note nag directeur général bu CETUD di tëkk nag patron wu bus yi di leen wax lii dama leen di wax ngeen gaaw nag dellu ginnaaw ci mesures yi nga xamante ni nii moom ngeen jël te daal di koy xamal seeni ay GIE ngir rek ñu respecté tarif yi nga xamante ni nii ministère bu yor wàllum dem bi ak dikk bi tegal na ko ci janvier 2023